ñu dal ci yàlla na leen ko yàlla fay mais su ko defee mu ngi guddi sëñ Mansour Jami la ngi ni su amee ñaari kàddu nuyoo rek mu nuyu leen Serigne Cheikh yeesal njaalam ñu jàngante fatiha te yëkkati jataay bi ngeen baal ñu àq mbooloo mi Serigne Mahamadul Mansour si Jamil ne asalaamu aleykum mbooloo mi fi teew yépp wa sayidina muhammadin abdillahi wa rasulihi wa ala alihi tayyibina tahirin wa sahabatihi ajmain wa radiallahu an bahri lfahama abil abbasi ahmad soxna si ñëpp baax mënalul nga dara mais sëñ Mansour ne ma jóg si néeg defaral ko benn nga demal ko nga soxla wala nga naan nee na lendemain ne fajar bi ñëw ko si frontière bi sëñ Mansour que ça va très bien

قلتم ضراف كمل لكنه من جودهم قطرات غيث ركابي وبصاحب الختام خاتم الأنبياء دفل فما عدول كرام معدنا لكنهم نالوا لدى تقزيم خير سهام yaakaar ni bàyyi bi mu leen bàyyi si kaw suuf moo gën si ñoom déedéet rasulullah ci waawan li ñu am li leen ko may mooy soppanti bëgg yàlla ak yonen jaral seeni way jur jiital njaboot maa Maodo xaritam waaw yëkkati leen seen loxo yi ca kaw bu kenn nelaw bu kenn yandoor ñu bokk way ya rasulallah ma ne ñu bokk way ya rasulallah wa'ada allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlifa alladhina loolu rek la ñu ñaan yàlla yàlla nee na képp ku nga xam ni kii wax ngeen waaw Seyd Cheikh Ahmad Tijane Sy Mansour ne fekkee muccul rek waaye daanaka mënoon nañ koo bañ a yëkkati ne ndigal nag moo ko sabab di sant yàlla bu baax ci jataay bii nu yàlla may ndax nii rekk lañ ko doon ñaane ànd ak mbégte mu rëy ne sunu waajur sunu xarit suñu lépp suñu baay sëriñ Abdul Aziz ci turu njaboot gi yëpp ñu ngi koy delloo nuyoo di nuyu suñu mag suñu xarit Seydi Hadji Mansour di sama mbokk daara sëriñ Mamour Ndiaye ca Ndar jàngal nu ñu bokk lu bari nee ñu ngi koy ba nuy lu bu baax a baax nee di nuyu njabootu suñu maam Seydil Hadji Malick yi bokk ak ñun jataay bi nuyu imaam yi nga xam ni ñoom la yàlla jiital ci kanam njaboot yi nuyu muqaddam yi nga xam ni fa tabaarakallaahu ñoom la yàlla jiital ci kanamu tariqa bi ne nuyu ñi nga xam ni ñooy autorité administrative yi fi nekk yépp di nuyu directeur de société yépp di leen ziyaar ci guddi gu màgg gi ne ci ndigal di fedd li njaal di ko dolli njaal suñu wayjur Cheikh Seyd Mouhamadul Mansour waaye di sant suñu wayjur wi Seyd Abdul Aziz mbir mi bi ñu xewee ba suñu jonni tey fii ñu toog bi mbir mi di am fekk na mu am booba rendez-vous Paris ngir yaramam waaye ca saase mel na ni wér na ba dara jotu ko ndax xew-xew di dalal sunu xel di ñu taxaw bàyyi ñu xel lii yépp loolu moo ko war ba mu commencé ba léegi xel yépp dal na waaye dalal xelu njaboot mu ni Mansour fokk nga wax Cheikh jaalal mbokk yi lii ko am baay bu mel nii moo looy wutati ñaanal ko yàlla xanaa yàlla gën a guddal fanam bàyyi ko ci kanam njaboot di ndokkeel ci li waral ñu daje fii muy màggal juddu seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne dama toog léegi rek bi sam di waxtaan sama xel daw ci sëriñ bi ni mu daan melale gàmm daf daan wax ni lay wi gàtt na foo jëm nga ni Tiwaawan looy wuti damay màggali juddu gi ñu bind ma kooku mooy kan mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi koo fay fekk ci ndigalal kan Cheikh Seydil Hadji Mali koo fay fekk jëwriñam ju mag ji kooku mooy kan Cheikh Seydi Aboubacar si ak njabootam yépp nga jóg ngir ndigal sopp dëggal ñëw ba fii nee loola ku ca mënul am dara leneen doo ca am dara te fa tabaarakallahu koo xam ni mooy muhammad yàlla màggal na ko soo ko màggalee yàlla màggal na ko soo ko màggalul yàlla màggal na ko fekk lu yàlla màggal nga bokk ca màggal ga da ngay màgg rek uuti yàlla mu ne dafa mel ni bërigo bu fees del nekk ci mbarta boo tegee sa loxo du ko te dem soo tegul sa loxo mu dem ne kon fa tabaarakallaahu ki tax ñu bindunu kooku mooy kan mooy sayyiduna muhammad wa ma xalaqa arrahmanu shay'an li nafsi siwa sayyidil mahmudi wa huwa habibu xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi سوى سيد المحمود وهو حبيب وأوجد باقي الخلق تعظيم حبه عليه تحية الإله تطيب نيوم جهتك ku ñu bind rek ku yàlla bind terele la Seydina Muhammad moo tax waaye mu bind Seydina Muhammad def ko muy mbégu boppam waaw kii su la yàlla baax ki nga amul kudul moom muy Cheikh Seydil Hadji te sëriñ bi daan wax ni lépp bu lekkee aloom na ko gërëme coy gàmm fu ñu ko mënoon di def fii ci àdduna bi wala Sénégal te sopp yonent fu ñu ko defee rek war ngaa mën a dem foofu yow yàlla baaxel la moo ko sabab Cheikh Seydil Hadji loolu rekk honneur la koo ko bokkalul ki nga am moo ko samp fii ci réew mi ñëpp di ko ci roy muy gàmm nag waxuñu nan la bëgge ñu gàmmoo noonu xam nga mënoon na indi gàmm rek te du wax ni ñuy gàmmoo waaye bu la waxee ni ngay gàmmoo mu sog lay wax la ngay am ca biir gàmmu ga Cheikh Seydi Hadji Malick lii suñu baay bi wax sànq ni cheikh bokku ci de waaye cheikh seydil xaaji malik bokkul ak gaañi de nee coow lee bari rek nee coow lee bari rek waaye li xaaji Mansour wax sànq ñun ñëpp war nañoo defaraat suñu comportement ndax kenn ku génn jëmmi Seydil Xaaji Malik lañ lay xoole boo defee leneen lu wuuteeg loola yaa ngi yàq liggéeyu jàmbur ndax yaa ngi tudd koo xam ni ñépp moom lañ la jàppe te trafic d'influence moo gën a yées te loolu ñu bari moom la ñuy def ne wax gu ma sa waxu gàmmu geeg yooyu waaye damay dugal loolu tuuti dañu toog ak sam pap ab ne sam papa ca néegam ñuy waxtaan ma ni ko papa man daal bu doon sama sago la sam maam Seydi Hadji Malick waxoon ni fii ba saane kër góor saane ñan ca jolof bëgg naa ñu ñëw fii fekke si sama gàmm gi wax na ko sànq li nga mën a jële ci gàmm jële ko ci xadra bi boo ñëwoon ba buntu Tiwaawan ni fii nga aju muqaddam nga walla nga dem feneen di fa gàmm baax na lool mais du sakk xam nga lan mooy sak ñun ñi ëmb tariqa bi bokk ci xadra bi ñëw fii bokk moom jataay bi ñëpp di la seen ña nga àndal xam ni fi ngay duye duy nga fi ba fees soo wàññee ko xupp ga ku bëgg nga duyal ko loolu mooy liy dëgg mooy ñépp nañu ñëw gàmmoo si fii ci xadara bi ak moom ñoom duñu ko wax waaye loolu mooy liy dëgg nañu fagaruwaat bu baax ñëw jàppale leen épaulé leen ndax suñu lépp ñoom ñoo ci gën comme ñun mënuñoo gën ci seen lépp bu jotee rek nañu taxaw bokk ko ak ñoom ba ñu xam ni ñoo ngi ni seen xel dina dal te lu ñu bëgg daañu ñu ko defal kon fa tabaarakallaahu maa ngi sax bëgg a guddal maa ngi koy jéggalu waaye dama waxoon sànq ni alaa azimu laylal wilaadati xisbatan xisbatan rek caaxaan nekku ci Seydil Hadji xamul caaxaan dafa indi gàmm yonent bi muy cër bu rëy mu yéene ko mu ni sama gaañi xisbatan laa wax amul leneen yi ci des yëpp daf lay wan ni rek bu dul xisba rek jaratu ko illa ida lam yakun naxwa alxaraami udulu nee na du xisbatan la wax soo ko defee ngir sàkku tuyaaba rek la nga am wa mawlidu bi sharafun wa qin mawlana wa mawlidu bi موضع ففي التعظيم إرجاح شجوني نوى مولده به شرف وخير ففي التعظيم nee bi mu la joxee ngëneel yooyu yëpp lu nekk mu la koy dig ci tedd nga ci kawe ci baax ci loo bëgg yàlla defal la ko ba ci yàgg mu ni daal fa fi taadimi in jaaxu sujuni asalaamu aleykum ngeen baal ñu àq mais sëriñ bi ne ñoraas bi kat baax na ci kat nee la séeréer ba waxoon daal ñu bi daal baax na ci de nee mu ngi guddi nag ne ay kilifa fi ñëw nag ministre de la des sports Mbagnick Ndiaye mu ni nee taalibe laa de sëriñ bi ne waaye nag ministre nga nee waaye booleeg taalibe gi nag ne ak taalibe rekk nag lañ mës a xam ci yow waaye cër biit yàllaa ko joxe kon sooye boo nag nangu ko rek nangu gi mooy wone ni sant nga ne gannaaw loolu itam ministre ministre d'État Zakaria jaw mu ngi fi teew di suñu mbokk taalibe di suñu soppe ñépp xam ko ci diine ak bëgg tariqa bii ne gouverneur de la région de Dakar de Thiès ne gouverneur de la région de Thiès Mouhamadou Fall ne mu ngi fi ne ak préfet préfet dëkk bi El Hadj Malick ak gouverneur Cheikh Tidiane Ndoye Dakar né le maire El Hadj Malick Diop et le vice-président de l'Assemblée nationale Sëñ Mansour Sy Djamil ne suñuy député Cheikh Tidiane Diouf ak soxna Aïda Sall ñoom ñëpp ñu ngi fi teew ne ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ne ak directeur de service yi fi teew yëpp ne député l'honorable député Diop Sy suñu mbokk mu tedd mii biraan wan di suñu goro mais moom itam teew na fi sunu bàyyi ñun ñépp nag di bàyyi alxaaji xalifa kebe di mbokkum sëriñ Babacar Sy préfet Mbour mu ngi fi teew le commissaire Samba Sy moom itam mu ngi fi teew ne suñu sang yi nga xam nag ñoom ñoom laa waxoon ca début ba muy xaaji Makki Taal ànd ak Cheikh Iyane Thiam ne ak waa kër Thierno Bachir Taal ne ñuy suñu sang yu fekk guddi gi ne dalal sunu xel ne Alioune Sall si sëñ bi dolli na ko ci si ne dama koy musal ci si ji tuuti nee ba ëllëg rek ma nanguwaat ko nee woon na ma neel sëriñ bi nee suñu colonelu bopp bi nag colonel Abdoulahi Diop nee préfet Jibi Diallo mu nga nee toog ne su ko defee daal kilifa yépp rek teew nañ yàlla na leen yàlla fay seen jéego yi ne sous préfet Ndong mu nga ne teew ak sëriñ Alioune Konaare ne Serigne Alioune Konaare bu Paris ñoom ñëpp ñu ngi teew yàlla na ngeen yàgg a teew te teew buy ñëw yàlla na leen gënal at mu ngeen teewe rek yàlla na ko yàlla def mu gënal leen ci barke ki moom guddi gi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak barke Cheikh na Tidiane mii sëtam su ko defee rek ngeen bàyyi xel gàmm gi bu baax a baax ngeen nekk ñu vigilant surtout yéen waa koskas yi na ngeen taxaw tem na ngeen am itte bu leen négliger dara lu ngeen xamul na ngeen ko vérifier ba xam lan la nu ngi ci jamono boo xamante ni léegi kenn dootul doyadal benn mbir wala bokk nga xam ni nit ku ñàkk a xàmme nga waaye ku xàmmee dana am loo bàyyi xel nañu taxaw tem surtout yéen ñi ciy ndaw surtout yéen ñi ciy ndaw adduna bi yàlla jox na ko ndaw yi bi yàlla jox na ko ndaw ñi ba noppi ndax téeméeri nit yu daje ndax juróom-ñeen fukki ak juróom-ñaar yépp ay ndaw lañu ñett cay nekk mag wala ñeent kon yàlla moo leen jox àdduna bi ngeen responsable ko te nag eh, yonent bi sallallahu dafa ni na nga profiter ci sa jeunesse bala ngaa màggat soo màggatee dootoo man dara man xam naa ko bu baax a baax léegi mënatuma dara la ma mënoon ba may daw kaar ba sax mënatuma ko mu ni na nga profité ci sa wér bala ngaa feebar mu ni na nga profité ci sam koom bala ngaa ñàkk ne shababaka qabla haramika wa sixataka qabla saqamika wa faraagaka qabla shuglika wa ginaaka qabla faqrika wa xayaataka qabla mawtika ne su ko defee juróom yooyu profité ci na nga ci profité soo wéree profitel ci wér gi soo soo amee temps profité ci soo amee temps soo amee temps nga profité ca temps ba bala nga koy ñàkk bala nga koy dund gi itam profité ci bala ngaa dem profité ci nag bala ngaa dem laaxira. doo dem gis boo demee gis yëf ya métti. nga ne yàlla may ma ma dellu. nga ne yàlla may ma ma dellu. ah. gaw ma mu yomb nag. gaw ma mu yomb su ko defee yéen xale yi na ngeen taxaw tem. mais su ko defee yéen xale yi na taxaw tem. xam ni àdduna bi seen àdduna la. te ñi ngeen di dégg ci taarix ñu di way ñëpp. te ni ngeen dégg ci taarix ñu di leen woy ñëpp ku ci am ñaar fukki at la mu cay teg du bari Seydina Ali ñaar fukki atam la jiite xare Usaama tubnu Zeyd ñaar fukki at ak benn Seydina Omar coow li yëpp ba muy dem ci yonent bi vingt-huit ans la am waaye taxaw temm rek su ko defee itam ngeen góorgóorlu rek taxaw fonk seen diine fonk seen tariqa fonk seen diine fonk seen tariqa wuti loo am wuti loo am kurus kurus deesu ko ko jëkke dañu koy mujje boo demee ba amatooloo def nag wér gi demetul noonu. wér gi demetul noonu. âge bi avancé na. âge bi avancé na. nga jël kurus gi. nga waaye ni wew. waaye fu ñu la fekk. yaa nga toog. yaa nga toog. yore kurus. yore kurus. wutub néeg. wutub der. wutub der. di naxe. di naxe. loo fay wax. bu rawaan ñëwee nga dof. ah ndax doo ko att ndax doo ko attan ndax ndax doo attan rawxaan bi dafay ñuy tëpp tëppee ko ne su ko defee ñuy tëpp tëpp lëkk waaw bés bu ne ñu indil ñu fii kenn bés bu ne ñu indil ñu fii kenn laaj doon jëfe nga naan ñi laaj loo doon jëfe nga naan juróom-ñaari xaraf yeeg juróom-ñetti xaraf yeeg yoo xam ni xam nga ni awul yoon. lim yoo xam ni xam nga ni awul yoon. ne su ko defee yooyu yëpp tabaarakallah. ngeen bàyyi ci xel. ngeen bàyyi ci xel. xam ni rek. xam ni rek. kurus daal. ci yëf yi la bokk. ci yëf yi bokk. waaye ndànk. waaye daal. ndànk ne. waaye. sama bàyyi ne. sama ne. turu yàlla. yàlla. ñeent la laaj. ñeent la laaj. ndigal lu mat sëkk xam gu mat sëkk laab gu mat sëkk ragal yàlla gu mat sëkk ne yii ñeent bu ci manqué